aywa www point allo sénégal point com hashtag màggal Touba Serigne Habib Sy Mara Niass mbokki internet yi nuyu nañu leen màggal Touba lañu jëm nuyu buur lañuy jël teg ko ci loxo Serigne Mountakha di ko ñaanal jàmm ak gudd fan tey ñaan jàmm ci yoon yi sàkku xam-xam jar na dem ba siin du samay wax waaye waxi ku sell ki la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa looloo waral ñu sol suñuy dàll ñëw ba fekk ko fi mu nekk ngir xam-xam rek ay weer ci ginnaaw ñu ko doon wër tey ñu ni faw ñu gis ko ndax gis ko wérgu yaram la ak màndargaam bii di fajkatu aajo yi sëriñ Ibrahima Mané yàlla ko baaxal ba lu mu def yàlla ni waaw waa Jolof ni waaw Sénégal gépp ni waaw ku ko xool fi mu toog ak li ko wër yépp ñu xam ni tak tey jii nag xam-xam nar naa feeñ xam-xam nar na feeñ ci li ñuy gis waaye xam xam-xam nar na feeñ ci li nëbbu Macky sàll jeudi bii lay dem fi li nga xamante ne nii mooy Touba sëriñ bi loolu dinañ ci waxtaan ndax actualité tamit lu ko ñor la Ousmane Sonko ba léegi mi ngi ci réanimation Macky demam bi nga xamante ne nii mi ngi koy dem Touba Mbacké fekk ji ki nga xamante ne nii mooy sëriñ Mountakha te Serigne Mountakha moom moo jëloon tàndarma teg ko ci ki nga xamante ni loxoy Ousmane Sonko ngir mu dakkal grève de la faim bi. ay kàddu yu jub yu jub yu jub di dugg ci li nga xamante ne nii mooy euh, diggante ki nga xamante ne nii mooy Ousmane Sonko ak Macky Sall est-ce que Serigne Mountakha dina ci yëy yàbbi lu ñuy xaarandi la ci kanam Serigne Mara Niass moom da nee na sëñ bi day daqal lépp loo xamante ne nii seet la ndax ci mujjub jamonoom la toll. jur na nag wax ju bari ci biir réew mi dinañ ci àddu leneen dinañ ci wax sëñ bi muy li nga xamante ne nii mooy sëriñ Habib si a ah, sëriñ Habib Sy de sëñ bi wax na gannaaw bañ nee nag bañu toppee sëriñ si naan nañ génn nañ génn moom génn na te wax na nee na fii ak dakkaluñu li nga xamante ne ñu ngi koy teg ci ki nga xamante ne nii mooy njiitum Pastef di Ousmane Sonko ah jàmm du am ci réew mi de jàmm moom mën nañ koo xaar feneen lu du ci waaye du doon ci réew mi élection am na moom njiitu Pastef bokk si 9h 10h dinañ ko annoncé ni moom président lay doon moom moom Ousmane ko du samay wax waxi sëriñ Habib Sy la dinañ génn réew mi sëñ bi wax ci li nga xamante ne nii moo xew ci bitim réew rawati nag ci Afrique bi Afrique ku ko xam xamoon ko ak taar bi mu amoon waaye léegi Afrique yàqu na ci ay coup d'état sëriñ bi loolu lépp dinañ ci àddu waaye duñu guddali wax dañ koy bàyyi moom sëriñ ki nga xamante ne nii mooy doomu jolof bi di Ibrahima Mané mu nuyu mbokk internet Allô Sénégal yi ñuy seetaan awuzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ah, maa ngi nuyu yëpp ñu ma yëpp ci internet bi ci réseaux sociaux yëpp maa ngi leen nuyu ci sant seen tur yëpp waaw man Serigne Ibrahima Mané hmm. sëñ bi lewetal na waaye nag li ñu tiim lewetul sëñ bi lewetul benn yoon parce que li ñuy gis suñu bët di ñu ko may kéemtaan la waaye kéemtaan bii de dafa laaj teey ak dal laataa ñu ci dugg di ci xuus dañuy dem ci li nga xamante ne nii rek mooy buntu lépp muy wàllum seet sëñ bi ak li si xaar sa mën-mën la senegale yi teg nañ la jox nañ la ci kàddu ba pare ñu ngi la ciy déglu sëñ bi wàllum seet ak li nga xamante ne nii mooy li si xaar boo ci doon wax waaw wallu sedd eh, fii nii ci serin Serigne Ibrahima Mané ku ñëw bugg sedd rek na ñëw ba fi ci man lu lu mu ma xoolal ko ko ma leeral ko ko mu dem lu ma ko waxee soo ko defee mu jëfandikoo dana gis waaw waaw dana gis lu wóor waaw man maa wax man Serigne Ibrahima Mané ah wallaahi waaw. dafa bari ay façon. ah seet dafa bari am façon de mais man sama seet bi dama ko donn ci sama maam du ci sama papa de ko sama maam foofu laa ko donn de ci sama maam waaw ku ñëw fii dana xam dara waaw ay listakaar ay seet yëpp no ñëw ba fekke ma fi ma toog wallahi dana gis li ma ko wax moo ko jëfandikoo wallahi aduna bi yëpp dina ko wax waaw sëñ bi duñu ñu àggale mukk ci thème yi nga xamante ne nii moom la ñu war a ci biir émission bi saa ñuy def ballottage ci li nga xamante ne nii moom la ñuy gis ak question yi ñuy war a posé ci ci durée émission bi yëpp sëñ bi bu ñu xool li nga li nga janool nii li ñu toog fi ñu toog nii gis nañu nag sa wax bariwul ndax kat nag olof jaay day wax nii ki nga xamante ne nii moom day jëf ak kiy wax bu ñu ñëw bokk benn yoon yow nag sa yoon dafa leer nañ ndax dafa tàllee ko ñaret tey sëñ bi ñu gis fi ay bopp ay bopp golo ñu gis ko ci sa fi nga toog ñu gis fi ay dunk ñu gis fi ay signal ay géexu gaynde lu ne lu ne lu ne lu ne gis nañ ko fi ay sunguf sëñ bi lii nii yëpp lépp lépp lépp xam-xam bu wér la xam-xam nag buñ koy wax du li ñuy dégg rek mais lu ñuy dem di gëstu ji fu sori la te yow sëñ bi dugg nga ci àll bi ba am li nga am nii muy xam-xam bi waaw li ma am fii nii mu ngi nii yëpp gis nañ ko bari na ku bugg a ñëw nu ñëw rek ma defaral ko am na fi dunk am na fi bopp golo am na fi bagage yëpp ñu ngi fii waaw bagage yi am na lu mu war a faj bu ñëwee danaa ko defaraat incha allah waaw. dafa am tey danga ma ko wan tey ba mu mat sëkk ci kéemtaan yi ma gis ci li nga xamante ne nii mooy bopp golo sëñ bi bopp golo nag ah sànq mandargale nga ma ko loo xamante nii ah, yéem na ma de. te xam naa dina yéem sénégalais yu bari ñu bari yaa leen samp ci bopp golo gi alal ñépp ki ka képp koo xamante ne nii rek am nga ko tey ci guddi yi ñu toll te mu jaar sa loxo ci bopp golo bi nga ko jaarale sëñ bi bopp golo bi boo ciy dikkal loo ñuy wax. waaw bopp golo bi liggéey naa ci bari bari fii ci Sénégal yaa ngi dégg ci alal mm-hmm. may dugg Listra sëñ bi bopp golo bi askan bi gisaguñ ko dañ koy yëkkati nit ñi gis ko sëñ bi. gis nga bopp golo bi ci alal laa koy liggéeyee yaa ngi dégg bopp golo bi ku bugg alal nu ñëw ma liggéey ko ci bopp golo bi sama maam ak sama papa yëpp foofu la liggéey fi yu bari bari ñu ngi fi yor na seen alal ci di bopp golo bi lañ ko jaarale wallahi bopp golo bi wallahi su ma defee listakaar ba pare ma ñëw ma liggéey la ci wallahi soo sàngoo ba pare da ngay gis adduna bi dina la gis ci boppu golo bi lépp am na ci ci bopp golo bi lépp am na ci waaw bi boppu golo bi dañ koy teg nànk rek parce que dañoo bari ñu jëlaat li nga xamante ne nii tey moo nekk ci wet gi mën na duma ci laal dara ndax xaw ma lu mu làmbool lii munaat la waaw munaat bi tey munaat bii nii ci wàllum jiboole wàllum noog lu ci waaw mbonaak bi ci wàllu juboole la. diggante góor ak jëkkër. Mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. eh, patron acca ouvrier am. lii foofu laa koy yëngati liggéey mm-hmm. wallahi ah. sama liggéey ba pare dana la woowaat nga ñëw ci moom fekkente ne jigante góor ak jabaram wallahi dañ jubo mm, ci mbanat bi wallahi azim waaw foofu laa koy liggéey waaw ay famille yu réeroo nag ay famille yoo xam te ne dañoo réeroo seen biir waaw waaw ci famille bi réeroo soo ma ko liggéey ci ñoom yëpp dinañ nekkee benn kàddu benn kàddu dinañ nekkee benn kàddu kenn mënul sa lekk bàyyi keneen wala naan bàyyi keneen fu mu mënta am rek dina bokk bugg a bokk a mbokkam ci mbonaak bi wallaahi ci mbonaak bi xam-xam feeñ na seen bi xam-xam feeñ na waaye tamit des na parce que bari nañ li fi nekk lili tànk lan la sax sëñ bi nga ma waxoon sànq. tànk bukki la. gaynde gaynde la astafurlah gaynde lii ma la liggéey ba pare ku la liggéey ah. mu faatu. lan la liggéey mu faatu lii ma liggéey ba pare ma jox la nga sangu ko ku la liggéey mu faatu ah. wala mu dof. mais sëñ bi loolu ëppul liggéey mu faatu. Ah, mu dof ñaari kay. ala kulli haal ñaari dina am mu dof. ba adduna bi yëpp gis ko waaw mooy tànk gaynde bi waaw gis nga leen hmm? tànk gaynde sëñ bi loolu leer na xam-xam nag ni koy développé yow rek yaa ko mën yow rek yaa ko xam ndax da nga cee bari le ma gisaat fi leneen ci biir li nga xamante ne nii rek mooy fi ñu toog muy leget ak mu dend li nga xamante ne nii mooy ay dunk dunk yi sëñ bi dunk yi lii pour yi uti visa moom laa koy liggéey mu gaaw gaaw uh-huh. gis nga lii nii picc bi mu doon daw eh, naaw soo ma ko liggéey ba pare mu sangu la uh-huh. wallahi noonu noonu la noonu gaawe uh-huh. lu gaaw gaaw sa visa dina ñëw ci dunk bi hmm. wallahi kii maanu dunk bii nii tey boo ñu ci doon développé dunk dunk yi fi nga dugg ba am dunk yi ak yi yan xeetu dunk la yii pour am ko dafa jafe de yombul de fi ma ko amee yombul de ah. waaw waaw fi nga amee kenn du fa kenn mënu fa dem non non kenn mënu fa dem danga am xam-xam ni ko mu demee uti bi nga am nga indi ko hmm. wallahi ci dung bi signeel laa fi gis sëñ bi signeel laa fi gis signeel nag man du du faral di gis nit di ko yore ci wàllum liggéeyam te tey gis naa ko ci yow signeel sëñ bi lan moo la booleeg moom bii ni cuñel bii bayre bayre soo ma ko liggéey ba pare dangay dangay am bayre foo tourné ci àdduna bi da la tudd sa tur hmm? diw diw diw diw diw mooy bi suñel bi foo munta jaar rek ex rek gars yi dina la wax ay diw ñëw na diw ñëw na diw ñëw mooy suñel bi wa suñel bi ngay gis ni mu ngi nii waaw leer na waaw dana ñëwaat dana indaat encore moromam. ci signal bi ci signal bi. moom wàllum ubbeeku aussi tamit da koy def dangay ubbi nit ci lépp ci signal bi. lépp lu nekkoon sa yaram mu salte dana ko dindi du ubbeeku nga am bayre kon xanaa man damay gëm ni rek tey boo ubbee nit ci signal bii nii day ànd ak li nga xamante ne nii mooy ci laay ba ànd ak dem ak moom ci li nga xamante ne nii mooy këyit. waaw waaw kon daal sëñ bi man mën naa gëm ni. mën naa gëm ni man fii lu fi nekk rek ak lu muy tuuti tuuti rek am na njariñ loo xamante ne nii ci wàllu ubbeeku ci wàllu këyit mi ngi ci. mu ngi fi li bagage yi ngay gis nii lépp mu ngi fi waaw ngi fi soo ñëwee lépp ngi fi mhm. ci wàllu ubbeeku ci wàllu bayre mhm. pour am visa lépp mu ngi fi ku la liggéey nga mu faatu mu ngi fi waaw boo liggéey kenn de mais ku la liggéey mu faatu walla mu dof man maa la fa sëñ bi wax nga ci waxi bayre wax nga ci waxi ubbeeku yaatal nga ci ba mu yaatu lool lool lool sax waaye nag man leneen daf ma yéem parce que sunguf si may faral di gis bokk wute na ak sunguf si ma gis sunguf si dafa mel ni sunguf si weex la sëñ waaw bi sunguf bi sunguf bi weex la soo sàngoo fii sunguf bu weex la waaw sunguf bayre lépp mu ngi fii sëñ bi sunguf si man dama njott ni ni mu weexee du pour nit ñi ñuul ñi mais pour tubaab bi la. waaw sunguf bi pour tubaab lay waaw yu nekk Europe pour moom la soo ko sangoo rek tubaab bi sax day day day ànd seen xel su gisee rek jeex na sunguf bi waaw mooy vite fait entre bi soo ko sàngoo ba pare tubaab bi du ànd ak seen sago. wallaahi. sëñ bi loolu xam-xam bu wér la waaye nag xam-xam bi dafa bari ba nga xamante ne nii dañuy gàttal ci bu ñu mënee dugg rek parce que branche yi dafa bari beneen bi ñu ci jàkkaarloo nii tiim ko sëñ bi parce que dañoo ñëw nag pour waxtaan ak yow ci li nga xamante ne nii moom nga def gëstu ci at yi ñu weesu yëpp leget lañu gis fii sëñ bi leget gi nag ah wute na ak leget yi ñuy gis parce que ñun leget dem duggi marché lañ ci xam waaye léget gii de wuti na ak léget yi ñuy dem jënd gu jee marché ndax léget gii dafa ànd ak li nga xamante ne nii mooy seetu sëñ bi léget gi nu mu demee waaw ci léget bi su ma defee xalwa ba pare lu ma gis ci yow bi laa koy gisee lu nekk ci yow ci léget bi laa koy gisee sama jinne yi ma koy woon lu nekk ci yaram bu ma defee xalwa ba gën ci léget bi laay xoole foofu laa gisee lépp lu nekk ci yow léget bi am ay kii bi seet bi nii waaw yi nga koy gisee ci seetu bi laa koy gisee leket bi dama ko dund ci sama maam ba ci sama papa fii sax guddi jinne yi fii lañu lekk. ci biir leket bi ci biir bi ay yàpp lañ koy toggal fii ñu lekk. sëñ bi guddi lañ nekk te li ngay wax wóorul sëñ bi. ah ci yàpp guddi fii lañu ñu lekkee de ay yàpp waaw. bi lay xewee waaw foofu laa gisee lépp waaw. kon daal leget bi am na njariñ loo xamante ne nii lu lu bari lépp rek maanaam dëxuñu na ci biir leget gi lépp ci biir leget bi la ne oui ci biir leket bi lu mu munta ki soo ñëwee rek ci biir leket bi sama duggee xalwa ba pare ci biir leket bi dama koy gis ni ma gisee seet bi nii sama jinne yi moo ma ko woon chaque guddi jinne yi fii lay ñëw reer yàpp rek la ñu lekk yàpp kese sëñ bi gannaaw li nga xamante ne nii mooy xam-xam yi fi jóge yëpp leget bi duma ci sori ndax nag dañoo ne ci guddi damay xuusandi rek jëm ci li nga xamante ne nii moo ñu bari ci réew mi guddi ñu toll góor ñu bari yëggatuñ li daan yëg bu njëkkoon yëg-yëg gi benn la woon mais léegi yëg-yëg gi dafa wute sëñ bi ngóor a dafa sonal ñu baree baree bari ci réew mi askan baa ngi jooy ñu baree ngi wër li nga xamante ne nii mooy lu baax lu ñu war a mën a jëfandikoo ba loolu le di ngóor a mën a daw mën a denc ci ñoom sëñ bi ngóor a yàlla xewale na ci may na la ci xam-xam kàttanal na la ci nguuru tey buñ ciy ñëw dañ ci dikkal loo ñuy wax. waaw loolu am na ñaari façon fekkee rab moo la def loolu danaa wirdu sama kuruus bi ma yónni sama jinne yi mu dindi ko ci yow. kon nguur dina kon rab dina dina causé loolu nguur. wallaahi rab dina causé loolu sax guddi soo tëddee da ngay gént da nga tëddee ak keneen nga xamante ne kooku mun la feete ci feneen daal wala ki nga ruus. jinne yi mooy defloo ay rab sama wirde après danaa leen dindi fekkee nag amul rab am na sungub bi ma la war a jox quatre jours da ngay weer quatre jours ngay may ki nga xamante ne ni ngóoro da koo dab da koo sonal quatre jours fekkee juddoo lool quatre jours fekkee noonu nga juddoo moom mënuma amuma lekk garab boobu yow doo faj mu juddoo garab boobu waaw boobu yàlla rek moo ko mun awma garab boobu waaw ñaari façon yi kay mun naa ko faj waaw fekkee ci fekkee rab la damay wëriti sama kurus bi ma yónni sama jinne dina ko dindi ci yow fekkee nag du rab am na sungub dama la ko jox quatre jours wallahi doo nelaw sungub bi nu koy jëfandikoo da koy naan dañ koy naan dañ koy naan guddi bu ko naanee ah, loolu kay boo defee quatre jours jeex na mais dafa am ñoo xamante ni sëñ bi néew kàttan dëgg la am na si mais dafa am ñoo xam ne seen aro yi dafa nooy du jug sidit yi day banku et autres tey loolu aussi tamit nguur la wala. loolu sama la joxee sungub bi soo naanee sungu bi ba pare affaire bi dana dëgër dëgër kan waaw. kon maanaam daal yow wàllum góor moom ak nu mu mën a demee ampleur bu mu mënti am rek yow dindi ko lu yomb la ci yow. yomb ci man fekkee rab la. danaa ko dindi waaw fekkee bu dul rab am na sungu bi ma yore danaa la jox sungu bi nga naan quatre jours da ngay dëgër keng waaw sëñ bi loolu lépp xam-xam la xam-xam feeñ na xam-xam yaatu na xam-xam waneeti ni nga ko sax laay wax parce que nag du tey la ñuy soog a gise yàgg nañu gise yàgg nañ la dégg waaye tey la ko yàlla dogal ñu gis la jafe nga loolu pour am am la waaye nag teewul saa su ne bu dëkk bi yëngoo faw ñu ñëw tamit gannaaw sa xam-xam ñu taataan la nga wax ñu ci wàllum dëkk bi sëñ bi ñu ngi jub màggal Touba comme ni mu ko daan defee moom njiitu réew mi Macky Sall naka noonu la koy defee nii parce que jeudi bi ñu ngi ñuy ñu ngi ñuy xamal ni dina dem fële nga xamante ne nii mooy Touba daje fa kay nga xamante ne nii mooy sëñ Mountakha seen daje nag ump nañu bari la fay xew waaye nag njott nañ ñi dinañ waxtaan ci tolluwaay réew mi te ku ni tolluwaay réew mi doo ci génne ki nga xamante ni nii mooy leaderu Pastef di Ousmane Sonko tey seen waxtaan boobu tey boo leen ñetteeloon yow sëñ bi ana nan ngay waxee ak ki nga xamante ni mooy président la république Macky Sall. waaw maa ngi wax président Macky Sall nu dem a jàmm ñibbisi a jàmm asalaam Serigne Mountakha. yàlla yàlla yàgg wér waaw man ci àll ba laa nekk ci affaire politique man xawma ci dara sax sëñ bi nag non ci affaire politique yi man xawma ci man jaamu yàlla rek asama kurus loolu rek laa nekk ci àll ba mais affaire politique kuy dem ñu def saraka rek màggal bi mu génne glace mu def ko ci buntu kër gi mu dugg ci oto dem loolu laay digal population bi yëpp nit ñi yëpp waaw waaw sëñ bi loolu moom ci tali bi la loolu ci tali bi la ak ñaan yaa ñu war a def ba sotti ba war a àgg fi nga xamante ni mooy bërëb bu sell ba waaye bërëb bu sell ba dëgg la waaye tolluwaay réew mi laa wax man tolluwaay réew mi dafa am dafa am solo ci réew mi dafa am solo ñu waxtaane ko te tey Macky président bi ñu bari ñu ngi koy joxoñ baaraamu tuuma ni lépp li nga xamante ne nii tey moo xew ci dëkk bi rek ak wàll bu mu mënti doon lépp mooma ba ki nga xamante ne nii mooy Ousmane Sonko grève de la faim bi mu nekk. waaw man de ci wàllu réew mi damay wax rek ñu def nit ñi def ndànk waaw Macky Sall def ndànk ñu yëpp population bi def ndànk waaw yaakaaruma nag élection dina am 2024. yaakaaroo élection dina am 2024. gis-gis eh, sama jinne yaakaaruma ko waaw yaakaaruma ko de mais yàlla rek moo xam mbir mais man de yaakaaruma ko waaw. da nga yaakaaroon élection dina am dina am 2024 wala da nga xam ne rek Macky Sall du bokk 2024 moo tax. yaakaaruma l'élection dina am vingt hmm. léegi Ousmane Sonko tey boo ñuy wax ci digganteem ci euh, maanaam wér gu yaramam ak ni mu demee nii ak tamit tolof tolof yi muy dund mettit gi muy dund partem tas dundatul li nga xamante ne nii moom la daan dund ba léegi mu ngi ci grève de la faim moom Ousmane Sonko ki ko yóbbee di euh, président Macky Sall tey booy digal usman Sonko loo koy digal. waaw ah, dama ko digal rek ci bi li mu ko wax rek. mu génn gré de la fée loolu rek laa ko digal mu génn gré de la fée waaw waaw loolu rek laa ko digal. mu génn grève de la faim. waaw mu le gisoo ni loolu dafa yomb mu génn grève de la faim. Ah, comme sëriñ bi wax na ko. def loolu. waaw mu nekk ginnaaw sëriñ bi. mu génn ci grève de la après mu déglu. mais prison ba mu nekk lekk yañ koy jox wóorul de xamuñu ko xamuñu yan façon lekk la ndax mun nañ koo jox lekk ñu xëy suba mu dee. Ah. loolu kay xaw ma ci loolu affaire lekk yooyu xaw ma ci yooyu dara waaw. bi ginnaaw li nga xamante ne nii gis nañ ko fii ci kàddu yi nga yëkkati jëmale ko ci nga xamante ni mooy njiitu Pastef di Ousmane Sonko keneen aussi ay kàddu mi ngi jug ci moom boobu ba léegi actualité topp ko muy Serigne Mara Niass nee dakkal li nga xamante ne nii mooy seetam parce que fin de carrière la nekk kilifal ni yow li ngay def mi ngi koy def waaye lan moo waral loolu sëñ bi. man de xale yi man xawma leen man maa ngi ci juróom benn fukki at ak benn yaa ngi dégg eh, man li may ñaan foofu rek ci ñoom Ousmane Sonko ñoom Macky Sall yëpp maa ngi leen ñaanal yàlla yàlla mais sëñ bi sëñ Mara Niass da nga jàpp ni xale la a ah, sëñ Mara man de maa ngi ci juróom juróom benn fukki benn waaw xaw ma nag moom ñaata at la am waaw tànk xaw ma atam mënuma wax maa mag wala mooma mag waaw mun naa rek wax man du ma dugg ci ci affaire xale yooyu man ci julli rek wirdu ci sama liggéey bi rek laa nekk. waaw léegi duggoo ci ci affaire xale yooyu waaye di nga dugg ci beneen mag Serigne Habib si yëkkati na tey ay kàddu yoo xamante ne nii yu kéemaane la <clears throat> ndax moom nee na ci kàddoom euh, ki nga xamante ne nii mooy njiitu Pastef di Ousmane Sonko fii ak mayu ñu ko jàmm réew mi bu ñu xalaat mukk ni dina am jàmm ñu di déedéet waaye mu teg si ni élection yi 2024 bu fekkee Ousmane Sonko bokk na ci. bu fekkee 9h lañu la ñu def élection yi 10h dinañ ko woo ni ko yow yaay doon président bi moom sëñ Habib Sy moo yëkkati yooyu le kàddu loo ciy wax ci moom. man de ci wàllu Ousmane Sonko maa ngi wax rek yàlla yàlla defal ko jàmm fu mu nekk mu génn ci waaw wala wax bu bari duma ci dugg waaw. jërëjëf mu doon noonu ki nga xamante ne nii mooy Serigne Ibrahima Mané boroom xam-xam borom daraja leer naññ ci biir ak ci biti lépp rek. xam-xam sëñ bi kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw ñaanal yëpp sénégalais yëpp ñu nekkee ci jàmm ñun yëpp ku bugg a ñëw ci man fekkee dama mun a liggéey xaajoom faju yàlla yàlla indi ko ci man fekkee nag munu liggéey ba mu fa xaajoom faju yàlla bu mu ñëw ci man man loolu laa ñaan maa ñaanal yëpp senegal réew mi nekk a jàmm maa ngi ñaanal Serigne Mountaga jàmm ci màggal jàmm màggal bi passé jàmm asalaam Macky buy dem foofu tan maa ngi koy ñaanal mu dem a jàmm asalaam mu ñibbisi si jàmm waaw loolu laa ñaan ci réew mi yëpp waaw. jërë ngeen jëf loolu loolu moo doonoon li nga xamante ni moom fi indi moom lañ fi moo fi xew tey ak ki nga xamante ni mooy Serigne Ibrahima Mané mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon incha allah.